may gërëm nag moom góor ñi ngeen baal ma mais ñi may gërëm jigéen ñi ñoo gërëm seen bopp parce que ñoo ñëw teew ñoo ñëw teew am góor ñi am nañu njàmbaar lool xam naa ni mënuma ci lim ay tur day nuru leneen mais jigéen ñi ku ci nekk gisal sa bopp ci li nga xamante ni maa ngi koy wax ñu xam ni mbir mi lépp doxul am na lu doxul ci man bu ma gisee ak aji may mun a dina ma ko wax bu ma gisee ak awandoo wala keneen mu wax ma ko ma lijjanti ko am na ci doxilinu élage lu ci doxul dinañ ko lijjanti am na ci doxi doxilinu aji may mun a wala keneen wala aram wala ku munti wala docteur ku munti doon duma lim ñëpp lu ci doxul loolu dinañu am occasion wu lijjanti ko mais moment wu tey bii du moment boobu. mais dama leen di wax ni leen du ñu bàyyee ti dara du ñu bàyyeeti kenn mu yàq leen loolu duñ ko nangu aussi parce que lii dafa metti ni ma ko dul nangoo suma bopp te may naa leen ko ku ci xam ni xam nga man leen rek laa dul nangu mooy ànd ak yow nga war ma wax dara di ko xoole wala ma ñëw ba dox dugg sa kër nga may xool bëtu maa ngi ci woon danga ma non man damay bëgg nga ni ma Malick man laa nga ni ma mankat lii ak lii ak lii faatu géey ñëw nañu këram dafa wax keroog indi histoire lu yàgg histoire bu yàgg wax ma mais bi mu waxee dañu nangu li mu wax te te àdduna nag mooy doxe noonu parce que li ngeen di ñaan li ngeen di ñaan dina dem ba xaj na waxuma la sax man mais ku ci nekk li ñu bëgg ci yow buñ ko amee xaj na jot gi dootul maye lenn li mais li am solo rek mooy bu ngeen dajee wala nga dox ba ñëw ci këram nan la lay téye man dama leen di wax leen man duma soppeeku duma soppeeku mukk te ñetti yi ñaan naa ko yàlla te may na ma ko wóor na ma dama ko ñaan mu may ma bañ ma bañ a soppeeku wër na ma ni may na ma ko ñaan naa ko ma bañ li su ma yaa doon wax naan judduwaat wóor na ma ni may na ma ko ñaan na ko mu may ma baña nek complexé manam ma baña yaakar ni li jomb na ma benen bi may na mako ko mu dindi ci sama xol soxor ak iñan loolu amna ko loolu buma taxawé di wax yalla may na mako nak damay sant damay Delo njukkal kon waye nak ci kaw loolu aussi yalla takali na ma aussi ak doye dek ñak fula ak fa faay def mukk lii ñu jëm nii buñ ñu ma woon da ngay dum ci koñ bi am wane fi yàppandeeg ñàkk fayda pour nit ñëpp woteel la ma gedd lépp bàyyi leen ko te ñëw toog jaraluma ko am na loolu sama bopp jaraluma ko keneen jaraluma ko mooy def jëf ji nga xamante ni ëllëg dinga ko rëccu kon yaakaar naa ni li ñu jógee dafa am solo aji may rafetlu bu baax seen taxawaay yéen ñëpp parce xam nga dañu commencé départ ma ni leen élection bii ak bee dafa wuute moo wax leen ni leen élection yi ñu jëm dafa wuute te bu wuutee nag Ousseynou il faut ci déclaration yi ak ci taxawaay yi ñu am ci fayda ba ñi nga jàkkaar lool xam ni yow mii kat lii ñor na la lan moo xew ñëw nañu ñu ne dañuy def référendum ah président Macky Sall am lu mu wax man li ma ci wax nous wax ko am ci taxaway ñu am comité électoral bu ñu taxawal je crois que def nañu lu nekk pour xelu nit ñi bisu élection yi ñew nañu man 9 h dugg centre bi Ben une heure de temps def parce que xamoon naa lépp lu ñu doon nam d'abord am na yu leen gis comme li damay wax ñu tàcc war leen bu baax grand yi nga xamante ni ñoo waroon école bi nga xamante ni ñoo waroon école bi ak ñoom caas Diakhaté ñoom ñi nga xamante ni kenn mësu leen gis ci suñu côté benn bu ñu leen daan gis ci beneen côté bi lañ leen daan gis wala bu ñu leen daan gis daawuñu leen gis fenn gars yi dugg si gis ni ñii am nañu taxawaay koo ci ñoom kuñ ci nuyu ñu fay la nga xam ni kii mi ngi ci leneen gars yi ne affaire bi compliqué na bi ñu demee école Grand Thiès gis nañ lañ fa def vidéo yi wane na ko ñu ñëw école Cité man mani policier bi duñ fi dugg parce que amuñ droit dugg fi te ñii ko voté ba pare na génn ba pare taxaw taxawaay bi nag commencé leen a énervé bi ñu dugg see ñoom seen délégation boobu mani leen cinq minutes buñ ko fi defee moo ko ki ma koy war a wax dinañu leen génn école bi parce que ñoom bu ñu duggee toog fi mooy di nekkoon ñii ci mbedd mi yëpp nañ ñëw toog fi parce que amuñu droit toog fi bu ma leen di wax il faut ñu dem ci détails yi pour ngeen xam ah ñu ñëw taxaw fi ma taxaw laa toog ba ci yàgg dégg ci rajo bi ñu naan ña nga école moo dëkkan di joxe xaalis di jënd ay carte électeur am benn autorité bu ma woo du ma tudd turam ku dëkk dakaar ni ma mais man comprendre uma quoi Malick gars yi nee nañ yaa ci biir centre bi di joxe xaalis ma ni leen man lii dama leen koy bëgg a xam gis nga man wax bu ñaaw duma ko wax mukk ku def jëf bu rëy nag dinaa wax wax ju rëy parce que ñun yoruñu daayira yoruñu tuur de famille dañuy politique mais nit boo ko naan fa mu ngeen bàyyi naa la ak yàlla fa ngeen jëm dafa soriwul bi ma déggee wax ci ñu woowaat ma wax ma ko journaliste bi ñëw laaj ma ni ma nee nañu yaa ngi ci centre bi di jënd kartu nit ñi ma ne ko d'abord man élection rek mooy bis bi nga xamante ni bu may dox du ma yor dërëm parce que du du dara xëy na loolu bind la xëy na sax nattu la man lu ma yore dama koy joxe cest di que loolu du du lu ñuy bàkkoo mais am na ñi nga xamante ni lu ñu xam dañ koy waxe xam am na ñi nga xamante ni loolu leen ni bu leen ko wax kenn booy dem dañuy woo kenn wax ko ko pare ni ko bu ko wax kenn am na ñu am nattu boobu c'est-à-dire que man yàlla moo ma nattu loolu comme xam naa loolu nag bisu élection duma ma doxantoo dërëm bu may def essence dama koy def bañ naa ko ba ndekki li nga xamante ni dañ koy def bi ma ñëwee de ko traité pour vous diir que ni yi dafa changé man ni leen mais man defuma loolu man leen man si talam politique boolewuma ak ñoom déglu leen baax li ma leen wax ma ni ci rajo bi te ci xam nga kuy wax ci rajo am na lool da nga koy sàmm ma ni leen man politique boolewuma ak waa Cité Lamy man Cité Lamy bu ngénte amee damay dem bu dëj amee damay dem bu takk amee damay dem ku feebar damay dem ku ma dégg ni war naa la seeti damay dem seeti la loolu moo indi waxu ngénte ak waxu dëj Mani, ma répété waat leen di dama ni leen man si dalami élection wuñu té lolu c'est la vérité lolu bako mako limay wax ni du luñuy bako, c'est-à-dire que luma war la c'est-à-dire xam nga pour lan ñi nek en face ñun dañu am problème ak ñom waxuma la sax ci man mais ñi nga xamanteni ñoo gëna souf souf euh, ci mouvement bi seen taxaway ak seen njariñ jëm ci askan wi parce que ñun dañu gëm ni nit buy dund day am njëriñ mani leen man école mani leen Cité Lamy gii du ma bàyyi bu ma bàyyee ba élection jot may jënd carte yi kon nañ ma jàppee dof mani leen Cité damay dem ngénte damay dem dëj damay dem tudd damay dem takk damay dem ku feebar donc man bis bi ma bàyyi ba mu jot may yëkkati xaalis ji ko jox nit ñi amul sens te ñi ko wax xam nañ ni waxuñu dëgg ma wax ko ci rajo bi mais lima wax ta waxuñu ko ñom mais loolu lañu wara wax mani ni ñom ñi ngi ni tok ni di di jaagu mban ci biir centre bi ñom nañu laaj waat ndax ñom man musuma tegg ak ñom takham te xamna ni ñom ñi andu ñok man segam ñom ñi àndul ak man la man ci bu dara xewul ma sekk ak ñom yenn teranga yi te def ko uniquement parce que luma ma def la kon man duma bayyi ba election jot may jënd sama carte wa gox lolu jombu nako Lalu la wax legui nak da ngeen di set wax ji ma wax ñu wëlbati ko boobu c'est pas bobu mom grawul mais man lima leen wax lañu war di wax ci kaw ta bima ma leen koy wax dañu yoori dok lox euh, yor dok dem parce que xam ngeen ndax lan dama décider ni koñ bi ku andul ak man dana def luma ma mën pour nga kuma, ak man ku ku comprendre dina dem luma man ba def ko tank duma ci ñak sama full duma ñak sama fay duma yak sama diine mais kuma dem nak ba xamni fele ca kan boba deur gis nga fa ah say yi mala yamal ak ñima ma nak nga xamanteni may guddal di ba cëgal je suis formé là-dessus parce que lima len wax la gis nga election yi gis ngeen li ñu genn len rek la Macky Sall ni non ña ca kaw te yilif len Idriss ak ñimo andal ni daf ni wi ñu ne nan ñi non bu ñu non toroxal Macky Sall sénégalais xam ni du ko bax amuti nit bu ñu takali ko ak mom sénégalais yi ko mu dem lol kaw lol lañ wax xam nga ñi ñi fi woté non te mu te mu jaral len, lu ne len rek la dañu ni fi dal amna kenn ku fi nek bu ngeen bëggee son bu leen expliqué leneen gëm ko dañ ku fi nek Macky Sall cërale na ko mi ngi koy continuer cërale gis nañu jox na ko cër ñun nañu ànd di wàññi nitam di wàññi nitam di ko toroxal di ko toroxal ba mu ni tott ba Macky Sall xam ni kii jarul dara mu ba ko dafa am li nga xamante ni ci politique boo koy raay raayal mooy dem ba mu raay la gis nga taxawaay bii ñu am ak fulla jii ñu am ci école bii ba keroog ku ci nekk mu jaral la lu ne bis buñ ko amoon amul woon. heure bii gañee nañu li ñuy gagné yëpp te man li ma jaaxal xam nga ñi ci koñ bi di ñu xeex bu ñu demoon ba gagné ñu sax ñoom dañ gis ku leen ni félicitation man li man man mbir mi daf ma jaaxal. ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñi fi teew ñëpp ah di remercier nag assistance bi taxaw fii tey ndax bu ñu fi ñëwee yëkkati suñu kàddu yéen ñu ko may. ndax boo ngeen seetoon démb tey du nga ñu yaatal mais àdduna noonu la tëddee yàlla def na 2013 la ñu quitté sous les ñun alkaati la ñu woon yàlla def ñu ñëw tombe aveuglément am ay xarit rak ñu dugaluñ ci benn parti ñu dugg ci mais ba ñu demee ba xool suñu bopp nattaat ko. defe naa suma juumul maa ngi koy wax Caas euh, Jaxate ma ne ko quartier bi bu ñu seetee mille neuf cent quarante neuf lañ ko sos Cité Lamy jàpp cinquante barki démb li ma ci gën a wax naa ko Seydi Hadji Malick ndax du ma wax Maodo Maodo mooy ko grand waaw le grand Maodo mais Seydi Hadji Malick lay wax ndax war ma ma ne ko Seydi Hadji Malick mu ne ma ne ko dama toogaat ñu xool suñu bopp de quarante neuf à nos jours ban doomu Cité Lamy lañ ne moo nekk maire amul ban doomu Cité Lamy moo nekk député ñu ne amul ban doomu si Lamy moo nekk ministre ñu ne amul man leen xanaa ñun dañoo jàngul ou bien dañ cee bokkul ou bien dañu cee boolewul moo ko caas ma ne ko jeex na man du man nangooti nit yéeg say mbagg dem subaa mu bàyyi ñoog suñu mbalidi yi du ma nangoo nangooti mukk wax ko mokk ko ma ne ko nag du ma nit ku ñuy foyee ñu xawam jikko ñu tempéra ma ne nit duma ma foyee du ma ko nangu mukk ndax dama liggéey administration laa nekkoon trente ans administration du fo du ma nangu tey ay xale yu ndaw di ma pënga pënge amu fu dus lamin fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa jàng suñu sër wax na ko fii la ñuy juddoo fii la ñuy jàngee mais tey Modou Kane mi wax Modou Kane dégg naa léegi mun écosystème écosystème la ñu tàmm wax ñu rectifié ko wax na dëgg góor gi Modou Kane tey bu tey bu dekk woon tey du laajte day dugg këram ban changement am si bi dara amu fi. les soins logiques doomu jàmm rek la ñuy fal ñu dem seen yoon bàyyi ñu fi ma ne nag kasaasees ma ne leen man dinaa jël sama responsabilité bopp ku dëkkutul doomu Lamine kenn du la fal man maa ko wax ak ku munti doon nag yaa xam mais doomu Lamine ngay doon. juddoo fi yoro fi ñu partagé wu coono yëpp parce que li fi amoon ay teena fi nekkoon lëndëm xaw ñoo rey ñu nekk ci kurti kurti ba jamonoy tey kon tey buñ gisee doomu Salamine taxaw ne bëgg na fa Salamine mais dama ci jàpp sama sër wax na ko lépp ñu ñëpp doom baadoo la ñu ah ñoo bokki mbir mais aussi li ñu wax dëgg la parce que aussi dafa wax daal gis nga gis nga jigéen ñi ngay wax dëgg pire la yaboo nga téye leen sëñ Babacar dax ne séddoo naa jigéen ñi xale yi loo soxla la ñoo ko am loo bëgg ñoo la ko jox ëllëg jigéen ak xale boo leen see dem na kon nag tabaarakallaahu yàlla na yàlla mottali ba ma gisee xool sama promotionnaire bee toog Pabas Jaxate ñoo maase gis suñuy ay rak mais damaa am fierté te du fi des on va continuer le travail sama wax nag moo du gaaw mais su ma nee naa def rek dana ko def incha allahu kooku am benn wax.